ami internetu AG Pro TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax di dajawaat ak yéen rek ci seen info du jours waaye képp koo xam ni abonné goo ci seen bile ñu lay wax nga daal daw abonné te activé rek li nga xam ni moom mooy cloche de notification bi ngir rek ngeen di mën di am suñu ay video à temps bu leen fàttee di like vidéo yi ak di ko commenter ndax lu ci am solo la. coowal MC ñas ak ñi nga xam ne rek ñooy di gouvernement bu Sénégal ki nga xam ne nag moom moo di MC Niass ñu daal di koy rek daal di tuumal que ni kii di président de la République du Sénégal rek daf ko jox lu toll ci cent ba cent millions de francs fa moom MC ñas nag daal di daw nit ñi nag di ko commenté ak lu ni mel moom nag MC Niass moomulee. daal di rek daal di génn defub sorti daal di xam ne rek loolu ñu koy daal di tuumal dara rek amu ci bu fekkente ni nag lu jëm ci sama jëmmi bopp man dawuma lenn ni xuloo ki nag képp koo xam ne rek am nga ci lenn looy wax rek dinaa ci gën dal ci revendiquer su dee nag ki nga xam ni moom mooy kilifa gi nga xam ne moo nekk fële ca Medina bàyyi nga xam ne rek moom moo fi toog rek Cheikh Ibrahima Niass moom nag MC Niass daan na xam ne ni ko kooku sama kilifa la waaye nag duñ ko dee waxal loo xam ne si nekkul rek man it dinaa ca daal di addu ndax nag liñ bëgg a jël def ko prétexte rek que ni xaalis boobu rek ñu ne rek président daf ko daal di jox rek moo tax ñu daal di indi woon kooku di Adji Sarr fële ca diwaanu Kaolack rek pour def réclamation yu ni mel moom na rek loolu dara rek daal di ci am te nag Adji Sarr la ko fa indi woon moo ko papam ñoom xam nañ ko te nag saa bu wax jotee rek ngir ñu génn daal di wax ci lu mel noonu rek danañ ca daal di wax moom MC nag daal na xam ne rek su fekkonte woon kii di président wala nguur gi dañ ko jox benn lu toll ci 600 millions de francs CFA wala 800 millions dina tal leneen lu daan dafay génn rek di dem ay États-Unis ak lu ni mel. moom MC Niass xam la ni maanaam les baadoo di dunda yàlla bu ko ab saay-saay ndax nag moom nag xëy na nag depuis mu juddu ak léegi rek ci luxe la ko nit ñi xam maanaam sol lu rafet dawal oto bu rafet ak yu ni mel waaye tey jii tamit su génnoon àdduna rek mari day taali kenn rek du mën a taxaw ni moom MC Niass moom yoral na ma dërëm bu toll nii wala lu toll ko trafatal ay ni te nag ñàkkul maanaam amul waaye nag mu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax nekkul ne rek doomu sëriñ laa rek dama war a toog di xuggaliko ak di def yu ni mel waaye nag bu ma amee baat goo xam ne su ma waxee ñëpp dégg ma dinaa génn rek di wax mu mel ne rek moom MC Niass nag nee na nag fekkonte ni nag waa état bi dañu ma jox xaalis bu toll noonu duma ma sax bougé Sénégal te bu boobaa tamit duma daw ndax nag lu toll ni état su la joxee xaalis nag waruloo sax di daw ñu xamal ko ni ko nag Mali ga nga xam ne rek da nga fa demoon da nga rek daal di demoon gisee ak ki nga xam ni moom moo di président bu Mali bi daf la daal di moom nag MC Niass daal na waat ci yàlla ak ci alxuraan xam ne rek ba mu juddoo ak léegi rek musul gis benn autorité malienne boo xamante ni rek recevoir na ko bu weesoo rek bu nga xamante ne rek moom mooy ministre bi nga xam ni moo ko recevoir këram ñëw dalal leen foofu mosul gis beneen. autorité malienne boo xamante ni foofu la nekk ca diwaanu Mali ba président ba rek di ko woo wala nag di ko daal di recevoir ñu ni nag moo xam ne rek wax yooyu nag nit ñi nekk di wax rek dara nekkul ci loo xamante ne lu ci am la ay sos ak ay nar yoo xam ne rek jël nañ ko bëgg koo teg rek ci sama ndoddu tey te du ma ko nangu tey du ma nangu ëllëg moom MC Niass nag daal dina weddi bu baax rek tuuma yooyu nga xam ne rek daal dina ko jël eh, teg ko ci kawam weddi ko nag ba mu set wicc te xam ne rek saa bu génnee waree génn rek def communiqué ci lu mel noonu dina génn def communiqué bi te bu boobaa nag lépp dina gën a leer muy waxaat rek ni encore une fois président de la république du Sénégal moom Macky Sall joxuma lu toll ni tarafatal ay ni te sax su ma ko doon jox duma ko daal di jël moom MC moo daal di xamle kàddu yu ni mel nag ngir rek weddi rek tuuma googu lay nga xam ne rek tegoon nan ko ci kawam loolu moo gënoon a fës mbokk yi ci xibaar yooyu ñu jox leen ci dig daje boo beneen yoon incha allah.